raditu anil mawla taala asalaamaaleykum mbokk jullit yi daare alquran bu sëriñ maxtaar jenn si daaru marnaan bi nu sosoon si atum 2006 si ñaanub ku tedd ka jàmbaar ja sëriñ saaliwu mbàkke ñu tàmbalee woon ko si zinc tey ji nag moo jur bâtiment bu yanji bi di accueillir si biiram ay tout tànk yu alquran nekk seen dënn ñu wàcc ko mokkal ko ak mboolem xeetu xam-xam projet bu ni mel moo di law ba si kamal complexe scolaire franco arabe kër maam awalo yi léegi nag mooy fii sëriñ muntaxa mbàkke bachir xalif général des mourides teg loolu jàng investir nag ngir jàngub ndaw yi yi moo taxit Serigne Matar Diène fas yéene see barkeelu mbokk yi jàpp leen complexe mag bi si Touba dina fas yéene ubbi ngir année scolaire 2023 2024 ñu fas yéene fi amal enseignement général mu doon complexe bu état bi ñu fiy jàngale programme bi ñuy jàngale si mboolem xeetu établissement yi nekk si biir Sénégal am na élémentaire am na moyen am na secondaire di fi mën am mboolem xeetu diplôme CFE BFM baccalauréat si mboolem série L wala S Kamal jox cër gu mag suivi formation accélérée nga mën a am métier si mboolem filière bi nga bëgg am na majalis bu dëgër jàngale bu wóor waaye tamit centre de formation professionnelle ngir mboolem xeetu métier également complexe bi di fàttali dañ ko liggéey si anam yu mucc ay environnement bu méngoog jamono moo tax ñu indil leen bloc A di daara ya alimul xabiir am na bloc B Ngénne Lagan am na bloc C Touba Xelkom ngeen fas yéene si ànd ak personnel bu xam walla wi am pédagogie mën a yar loolu yar bu préparé ay xale ngir ëllëg ñu mën a jariñ seen bopp ak seen réew leen di fàttali mbokk yi inscription yi tàmbali na le 20 août dina wéy ba octobre ñu fas yéene ubbi jëm si année scolaire bi bu ngeen siy bëggee ay renseignements mën ngeen woote si 33 978 90 90 77 Kamal complexe scolaire franco-arabe Kër Maam Awa moo leen di ñaanal une très bonne scolaire di ñaanal ku tedd ki Serigne Mountakha Mbacké Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak <laughs>